maa ngi ah, maa ngi lay fay. Ah, ñu gis ne léegi ah, monument nga bii caaro yi ñu gis ne caaro léegi écurie yëpp booloo nañu nekk benn xale yëpp jiital la naka nga naka nga dundee loolu. waaw xanaa di ko rafetlu rek di ni yàlla ñu yàlla musal ci saytaane lépp lu fi amoon rek saytaane la muy Xarim Ndiaye numéro 2 Ousmane Diop Issa Pouye Baye Baye Mandione ñëpp samay rakk lañ tey bu yàlla doge ñu defee ni turbaay ñoom ñëpp ñu jiital rek la nekk ci états di attaaya di entraînement mais franchement kontaan rek lañ ci mën quoi. mais ñu gis ay xale yoo xamante ni bokkuñu jikko. nga boole leen est-ce que loolu dina yomb. waaw dina yomb da nga leen di jàpp yow sa jikko rek boo leen jàppee yow sa jikko di nga leen mën a wuñal wiir leen lamb ji daal li ma wax ren ak déwén ci kattanu yàlla bu ñu yàlla maye guddi fan ak wér dañ ko bëgg a téye ñun waa Thiaroye suñu loxo. mais yomb ne ndax combat combat yi ngeen jël dafa métti. waaw xar combat yi nag mooy wan ni ndax dañu moo lay wan ni war nañu téye làmb ji wala waruñu ko téye ndax tey am na suñu benn booy bu bëre muy laaj muy laaj ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam mais daal ñu ngi wax ni daal ñëw nañ daal ci làmb ji ci kàttanu yàlla nekk benn suurewu ñëw bëgg a jël ñu moom. mais keroog dama gis Zos. ñëw si meeku. waaw bàkku bàkku lu neex mu jug dëkk ko. waaw sa diggante Zos lan nga bëgg a bëre Zos. non maanaam dama gis kenn dëkk ko. te mbëri yokkal nañ leen trois ans ma jóg tàllal koy loxo mais ba ma ko jógee tàllal loxo ñoom Bécaye Mbaye xam nga lam ca wax xam nga mais Zoss mbër la man war naa ko dégg li ma def ci làmb Zoss defu ko mais warul wax Khadim Ndiaye demal toog li nga def ci làmb loolu Bécaye Mbaye waru ko wax. rafetlu wuloo dama ko rafetlu wul quoi te lii day yàq diggante ay nit ak nit affaire ségrégation yi baaxul ci ay diggante quoi day yàq xam nga man na ku ma bëgg ma bëgg la ku ma faalewul faalewu ma la ak ku mënti doon nag merci.